صلى الله تعالى عليه وسلم فالعيس لنا لإجابته دفنا لولو نجل مجي فالعيس لنا لإجابته waykat wi ne na teraangay àddina ak àllaaxira mu lew dom te linu ko may moy nangul mustafa sulana li isabatihi dafa niroog fawa alladi ankara ma ataahu وفاسا من صدق ما رواه salaamaaleykum mbokk yi ah nu ngi leen di nuyu waa jàng yi gawar nani njiit mi ak ñi ci topp di nuyuwaale bokk yi wallu si ñi naam ñi sos mbir mi baax nañu waaye ñu seetaan siit kenn gënu leen ku toogoon sa néeg it ut fa yàlla am ko dama xalaat ne daal dëgg dëgg ut tiyaaboon ci waaye it feeñaale cofeel la ngi ci àndaale yal na yàlla nangu yëngu yëngu yépp bi ormati rasulillahi yi jëm ci moom te jéggale safaan yi بجاي سيد الأولين والآخرين moom daal defe naa ne ci ñi yàlla defal tuuti ngëneel amuñu benn sikki sàkka bu ñu war a dese ci seen xel mbaa seen xol yàlla rek ay buur moom rek rek rek ca booba nag ba faw ba faw ci féppit ci ñéppit ci jamono bu nekkit moom rek sunurihum ayatina fi l afaqi وفي أنفسهم أتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم ألا إنهم في مليك من لقاء رب ألا إنه بكل شيء محيط بايمان يوم رك رسول الله دوما دين مك دين ون اي پلو گودت بچه يور يور تاكو سان سين بوبك سين جبر سين دوم ak seeni cër ci seen tàkkusaan ak seen timis du ma deñ di leen wan ay kéemaan yu won ne maa fi ne man rek kenn newu fi kudul man dinaa ko wane ci asamaan yi juróom-ñaar dinaa ko wane ci suuf yi juróom-ñaar dinaa ko wane ci géej gi dinaa ko wane ci jéeri ji dinaa ko wane ci bàyyi mayi wane ko ci nit ñi dinaa leen ko wan ci seen bopp wan ko ci seen doom ak seen jabar sa nurihim kenn kenn آياتنا دنا كل في الآفاق وفي أنفسهم دولا بيمك دولا بيمك بكن أتا يتبين لهم أنه الحق من ربه بلا جهي خيول بكوك يو نغتا خمن خيول مبكوك يو نغتا خمن خيول مبكوك يو سيطان لك مهم نار nga te xam ne ci xéewal nga nekk nawet te xam ne ci xéewal nga nekk am ak moom weer te koo xam xam nga na muy def pour nga xam ne yaa ngi ci xiiwal day rocc xiiwal ga su koy rocc rek nga yëg ne yaa ngi woon ci xiiwal ci suba ba tàkku saani suuf si ci ñam kaw mi dara mettiwu ci ci ñam suuf mi dara mettiwu ci soo soxlaa guru yëy ko na mu la neexe bu dee ñam bi nga xàppati ko na mu la neexe xéewal googu yëgu la ko ba timis xam nga na muy def danaa nuut mititi bañ ci bañu digij bi ne ko cuut ci timis nga taf ko nag tëdd ci lal bi ne ndekete yoo man ci ci affaire laa nekkoon <laughs> ndekete yoo ndeke woon maa ngi woon ci dara ndeke maa ngi woon ci dara waaw kay <laughs> bu la joxee xiiwal amat ah, ba nga te koo xam da koy nangu su ko nangoo nag ba dem ak moom nga door a xam ne ci lëf nga newoon ana ana istiraaq dafa am benn waay bu mën a jàng bu laaj moroomam ne ko maal farqu bayna al ubudiyati wa rububiya mu ne ko fa li rabbi an yaxda وعلى العبد ان يرضى فاذا قضى الرب ولم يرضى الابد فما سمى ربوبيه ولا عبوديه ما <laughs> هو اكبر اين من تلال لام ينرى شباسين في نحو جرامير دنكتو عرب ويجر جر moo di masque suuf dinañ ko waxit kasara boppi njëlbeenu baat boo gis ay ndemante la dugg ca laam ak yanara foog mujjug arafa dañ koy maas ci suuf moom la ñuy wax jar waaye nag بين العبودية والربوبية سال سائل ما الفرق بين العبودية والربوبية الجواب بين العبودية والربوبية سؤال الجواب ولرب أن يخدع وعلى العبد أن يرضى فإذا خدع الرب ولم يرضى العبد فما ذم ربوبية ولا عبودية loolu loolu ma taxoon a waññeeku ay demanti googu laam yanaraa ma taxoon a dellu si benn waay moo laaj moroomam ne ko différence jaam ak boromam lan la mu ne ko borom daal moom borom bi daal moom sañ naa dogal lu ko neex lu ko neex la wax de sañ naa dogal lu ko neex heure bu ko neexe day war nag ci jaam bi mu nangul li borom bi dogal na mu mën a mel ci moom mu ne bu borom bi dogalee lu ko neex te jaam bi nanguwul dëgg-dëgg foofa naw leen fa am buur amatu fa ku mu am déet wali rab laam la wax de ولرب أن يرضى وعلى على الأخوان العبد أن يرضى فإذا أخذ الرب ولم يرضى العبد فما ذم ربوبية ولا عبودية استراخ نون سنو لب ديك لب يالا سنو لب ديك لب يالا فلا تول فن دار تمبول maa ngi laaj kana ci tànt bi fii xam ñi fi ni ñëpp xëy na président bi la xëy na président bi moom gàmmu gi la xëy na moo xam moo xam ku ne na mu tudd na mu sant xëy na kan ci nun kan na moo xam ñi ci tànt bi ak ñi ci ginnaaw ñépp kan Ah? waaw ndakaaru gi nga dëkk gi nga oote xew ci nga booyale xaat ci la sa xam-xam ci la sa xam-xam jeexe xaat ba mënu war a xam ñi la wuy seet ñi nga bokkal li nga bokk kenn benn ngo sag lott xaat fi nga juddoo fi nga dëkk fi nga xewle fi nga moome sa xew fi la doomu aadama ñëw mu di nit ni yow te xamula na mu tudd ku xam ku fi jëkk ci tant bi ci siseer ku fi xam ku fi jëkk ki jëkk-jëkk ñëw tey ci tant bi ku ko xam ci yéen bu subaa ki fi mujjee génn ku ko xam kaar kaar lu dee ndoo kuy jëkk dee du ñu deendoo kuy mujjee dee waaw kañ di nga dee lu lay rey kañ lay rey fu mu lay reyee isteeraax ngoog isteeraax mooy sa lépp diig ci léppi yàlla amula fenn foo mën a folote subaa ngi sës ràpp ci nun suba digganteem ak tey dara doxu fi samedi laa wax ak dimanche dimanche samedi samedi bu une heure jib jëm xam nga ne Damascus te ne bu doon gaal mu ngi sës ràpp kenn ku ne ci ñun suba yoroon na la mandat xamagoo lu mu doon munu laa yëqantalu ba seen ko nag ndax dafa njoole munu laa sa bët ba seen ko ndax dafa fat ku ku tàbbee ci biir labe ca noona lap lap ci sa côté bu ne ndey joor ak càmmañ ko suuf diggaale koo xam ne kii heure bu ko neexee jóg bu bu ko neexee nag heure bu ko neex jóg nee naa fi mu ne nun ñi ñëpp ku ci yàlla soxla woon lu dem sa kër ñu naan ko mu nga gàmmu ko yëg na ne yaa ngi fi dem kër gi ñu ne ko dem naw jànga ya fi lay jubal directement su ñëwee du ci laaj ku mu ci doon moom borom bu bu baxa bi wala bu weex bi day jubal ci yow directement bu bëggee jëfanteeg yow du laaj wala daf lay piiru <laughs> subhanahu wa mu ne mu ne Moustapha gan gàtta xel ci la xurey sin di laaj bés pénc mën naa am ak mënula am dama wane juróom-ñeenti përëw ñu teg ci seen bët subaak ngoon noor ak nawet takkusaan ak timis masrix ba maxrib yàlla ne amma yatasaaluun xamaa la woon ñu fàqat nun gi mu dog an man yatasaaluun gan gàtt xel gan gàtt xel a tax ñuy laajante laaju diingat andi na bàyyi la azim yi ci xibaar bu rëy bi xibaar bu rëy bi ñuy wax dee ak xibaar bu rëy bi ñuy wax dekkal ak xibaar bu rëy ba di bés pénc gan gàtt xel tax ñu di ci werante gis naa ne hum ñoom muxtalifoona way wuute lañu fii ci am bis bi ñii ne nañu am na ñii ne amul yëg naa ko maa ngi jàng amee tasaaluna kallaa nañ dox nu dem sa yàlla moo na dinañu xam ne bis bi am na bu leen malaakal mawti taxawoo nokk gi génn tudd dugal ngay xool te doo xef keroog dinañu xam ne bis bi am na su ma kallaa nañ dox nu dem dinañu xamaat ne yàlla moo na dinañu xamaat ne am na buñ leen suulee duñ ñibbi ba sama ndaw fekk leen am na ñu ne kàllaa so soofa ñeenti preuve la yàlla wax ci am na yatasaaluuna boo demee ay ndémanti la la ak mimara baat mënu la mel noonu ci arab liifa nga woon ca kanam dafa am lu dog liif ga wacc ko am ñëw yàlla ne gan gàtt xel moo tax yatasaaluuna ñuy laajante laajub diingat anina bàyyil azimi ci xibaari bés bu réy bii ñi naan dëgg la ñi naan du dëgg lu tax gan gàtt xel a tax kalaa nañ dox nu dem سوف تعلم وانا خلت بن يوخن الدقلة تجلبي ثم كلا سوف تعلم وانا خلت بن يوخن الدقلة تيفقي يا فريد لن يخن بس بي دقل جلد لن يخن بس بي دقل نيكاي ساخال دي لن يخن دقل بير نيكاي ويد لن يخن دقل بير واو فوني دقل ساخ با ديكو بيدي سما دف جروم نينتي بروي ألم نجعل الأرض محادا لما تعلو سوف مي جرنا بصل مدال مصر با بندك نجي توتي ba suuf jeex nga jéggi demaat ca kanam daf suuf ki tàllal suuf dala ci masrix ba maxrib géej gi taa ci suuf taax yi taxaw ci suuf ñu toog ci suuf tant ci suuf am dëkk bu ne am kër kenn ku ne am ëtt ñu desewaat itam bulwaar ak ñu suul niiw yi ki tàllal suuf mu doyee noonu ngeen ne am na lu mu tële ba وجبال ما دفدتي أو تادن ميلستي بي سوف غاري بارا نيلا دون دفني قال بوغا كبتش كوني مونتان ينجي جسيب موم لروف من التك دل نيار نعم. وخلقناكم مالين بين أسواجان نجل أوت كلور تي بين اللوخ بويخ كويخ ndox ni may bind nit ci moom dafa weex ku ñuul ndox mi may bind ci moom nit dafa ñuul ku xonq ndox mi may bind ci moom nit dafa weex benn couleur bu weex ci laa binde ku ñuul ku xeereer ku xees ku ñuul ci laa bind ku góor ku jigéen wa xalax naa ko maa bind ci mel na ndox aswaajan ngeen di xeeti xeet ñaata pare wa ngoog naa ma def loo ma kum nelaw yi ngeen di nelaw une heure de matin boo rombee fii defe na ndakaaru ñëpp a dee kenn ku ne la ma rocc ci yow ba nga mel na nga mel su ma ko dellu suul woon fajar doo jóg maa leen defal noo ma kon seen yooyu subaatan ngir naflaay ngeen ne mënuma bés wa jaan ma dégaase guddi ba mu sori def naxaare bëccëg ma xaasan ngir ngeen uti dépense su guddi gi continué woon buri yi du ubbeeku du ubbeeku atelier yi du ubbeeku kon solde du am dépense doo am kër yi tas njaboot gi dee maa def loolu ngeen mën ma bés wa banii maa tiimale waxukum ci seen kaw sappa si daa din juróom-ñaari asamaan asamaan bu nekk poids mat na soixante-dix mille kilos te bu rotoon ci seen kaw ngeen dee te dara téyewu ko ngeen mën bis bés وجعلنا من سراجا بين اللامبك وهوج مولير ادني بوي جمتبي بو فرانك لير الباماكو لير السنغال لير الكوديوار لير الافريك لير الارض ايجاز نجن من مو بسفنج وجعلنا سراجا واجا وانزلنا ماء ترور من المسرات تكين نيري ريخي ما عند السجاج المنيخ لول بوكو ني ما دافا دنجو غلاس نجن من وجاء وانصلنا من آه، وانصلنا من المستزمع انفجاجا لن نخرج انجر مجن اللين به شنخما حبا ونباتا بب مجن دوري اكباب مجن جخسيني فس اي بس بنش امنا امنا دفرة بتدوا عقمونا امنا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليلا لباسا وجعلنا سراجا وهوجا وانسنا من المصرات ما انسجاجا وجعلنا اللي نخرج به عبدا ونبات وجنات الفافا هي بس بنتي امنا إن يوم الفصل بس بنتي امنا والله كان دفا كرك ميقاتا دي لو ني داتا تدات بي دا لن جوخ اي برو بو يوم ينفخ الصور فتاتنا نافواجا وفتحت السماء فكان ابوابا wa si jibaalu fa kaanat saraaba keroog di ngeen xam ne inna jaanama kaana mirsaadan li taaqi doj wu toll ni doj wii ñuy taale ngor bu bés pencaat day daw rombale di wuy ji yàlla te pépp asamaan day mel ni saaku bu boo sar sa xeer ubbi bunt ba noonu la bidéew yu sotteeku ku dekki ku ne nag danga am koo war am ku la war bàmmeel boo gis mu tëdd ci kaw nit nit tëdd ci kawam ngir yàgg tëraay bu àllaaxira kenn ku ne sa tànk junney tànk dina ko war nga war junney tànk ngir seeraat bés penc am na wallaahi dina ñëw yow ma yun fuq fi suur فتاتون أفواجا وفتئت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت ذرابا إن جهنم كان مرصادا للتقين ما بل لابسين في عقبا لا يسوقون فيها بردا ولا سرابا إلى أميما وقساقا جساء وفاقا ñi yàlla dogal ubbi seen dënn def ci nuurul liimaan ñu nangu dogali ëllëgam ak mu samp Moustapha def ko jiwlin ñu nangu nekk ak mu di ngënu ku mu bind yamuñu ca ñiy dépensé ngir moom boole kook cofeel ñooñu tiiti bi pénc ya dañ koy dégg waaye duñ ko xelmati duñ ko dégg duñ ko dégg nopp duñ ko xelmati bët dina leen fekk ci teraanga te munuma munuma leen cee bañ a munuma leen cee bañ boole ndax tànt bu mel nii rafete nii kaar ñu waajale ko nii te boo fi toogoon ba bët set defe ne dañ fiy xaar kenn ak nit mel ni mbindeef du la fekk ñu ne koy moom tant bi benn ministère du ñëw ñu ne kii lañ doon xaar benn député du ñëw ñu ne kii doon xaar premier ministre du fi ñëw ñu ne kii lañ doon xaar président du ñëw ñu ne kii lañ doon xaar ñun ki ñuy xaar moo di rasulillahi ki ñuy xaar mooy mawlaana tabaraka wa taala mi nga xam ne du tàggoog nun ba ilaa yomal xiyaam Ah, googu fàggu nag ku ko am kaa teel te dara xewagul mën naa am bu dara ñëwee yàlla musal la ca dara jooja suñu bëgg-bëgg ak seen bëgg-bëgg tey ëllëg yàlla nu ko yàlla defal yàlla nu yàlla boole ci ummatu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam rasul moom xam ko rek naam waxuma sax nga bokk ci xeet wi te li wan naa leen ko bërki démb ci gàmmu gële ah, nañ koy wax angal muus benn waay bu bu bu bu bu yàlla xiiral ci lu bon mu mën ko it am ko ndax am na doole am juddu am sañ-sañ di def lu ñaaw rekk di def lu ñaaw rek te fan wa it gudd mu dee dëkk ba kompaloo ne duñ ko suul ndax moykati yàlla suul ko ci suuf day tax suuf sa beekoor ñu watal ko sànni ko ca santaare ba waa ja am fa ñetti fan ba funki ba toj yàlla yebal Muusa naka demal defar waa jooju te oo kilifay dëkk bi ñu defar ko suul ko mu ne ko ah sunu borom waa jooju dundam mu ne ko dund gi li muy ñaaw yépp dara ma ci waaye dañu mujj ubbi dañu mës a ubbi bés tawreet booba na bi judduwul tawreet lañu ubbi mu gis ci turu Muhammad ñu ne keey yonent bi nar a gën yonent yi mu laal ci baaraamam fóon ko ca ko baale lu ma defar yemuma ci baal ko li ma ko defoon may naa ko juróom-ñaar fukki jabar ci uurul ay bi waaw ku bokkul ci xeet bi fekke woo ko gëmula ndax ni woon la rek tur fi mu tudd miim adam dellu miim del nga laal ci sa baaraam foon ko mu jural la ñu jéggal la fan bu gudde noonu càncaay gu bare noonu ku bokk ci xeet wi di wax laa ilaha illallah wax dëgg yàlla ñu mën am ci yow yaakaar yàlla yàlla dimbale nun euh, kat sant yàlla rek nu war ndax kaar-kaar dund bi neex na lool ku xool gaa yi ni ñu tooge ni mbubb yi rafete kaar ni kanam yi leere kaar kenn fandewu fi am na sax ñu njog ñu njogonalu te boo demee ci frigidaire yi am na ginaar yu fanaan pour demain matin boole koog li ko lañ ju xeeñ ak juróom juróom di xaar àjjana wax dëgg yàlla fii la yàlla mën a yem maam yàlla nee na fii la yem fii la yemandi nee lu taw nag li bi door nag doy te am na lu xew gisiite xayran yàlla na yàlla fay am na lu xew am ngeen lu Ababacar amul Omar amu ko Ousmane Aliyin amu ko te kat ñooñu ku ci ne sa baaxaay amul limite baaxaay Ababacar àgg na ci ne bi ne na وكل ما سب ci sama dënd bi soti na ko ci dënd babakar hmm fofu جبريل في الشدر فقد سبه في الشدر ابي بكر لو جبريل صوت سما النبي صوتنا كو سي دنو ابا بكر دانا واخني امول كين كين ku am wàccuwaay ci fonkel ci man ku toll ni Ababacar amul te booba Aliyo ngi toog Ousmane ngi toog Omar ngi toog talato ngi toog Subayroo ngi toog daawu ko nëbb dana maali ahadin lahu mansilatun indi ka Abi amul kenn kenn moo tax saaba yi mos nañoo toog xam nga ni duñu bàyyi jàmm ñuy werante Omar ak Aba ak Babacar ku gën Omar ak Ababacar ku gën ndax sina naa Omar nabi dafa wax ci moom fukki yëf yu foor dama wax ne buñ ma yónni wuloon omar la ñu yónni déggal boobu wax ababacar a ngi toog mu ne buñ ma yónni wul woon omar mii la ñuy yónni bankal sa baaram mu ne bu yonante doon am sama gannaaw omar lay doon nee na alxaqu maa omar ay sukkaana dëgg nga ak omar fu mu mën a ne na wax na mbedd mu omar jaar seytaane daw ko ñeen fukki guddi du fa jaar دانا واخنا قولوا لا عمر بن الخطاب لذهب الاسلام بودو وانا عمر الاسلام دولا لانك تخلى في روم بي دم دي دم دانا واخ عمر بول ما فاتي سي نيان واخنا عمر نكو غيسنا سا جبر بو ديكري نيان دي يالا وننا ما سا جبر يو عمر اك سا كير تي اجينا واي خولو مكو بو باخ ناخ كو فير نغ عمر رينا كو ورون خول نمو سنه يو كندو لفير رسول الله yooyu ngëneel dal ci kenn Seydina toog na ba mu yàgg mu ne allahuma fa inni uhibbuhu yàlla seedeel na sopp naa Ali yàlla nga ko sopp te ku ko sopp yàlla nga noonu ku ko noonu nabi wax na loolu benn saabu bu ëppal jóg na ko waa rasulullah dëgg dëgg yaa ngi bëgg a ëppal yow bàyyi loo nga nu li nu xamoon nu bàyyi ko nga dinu julloo julli juróom ñu di ko def nga sant nu asaka ñu def ko nga xeex loonu yooyu yëpp doyu la tey nga bëgg a fab sa përëgu rakk ji yëkkati ko teg ko ci sunu kaw waaw ma ne loolu yàllaa la ko wax wala ko wax ne bi ne teg ba mu yàgg ne ko bal min indillahi yàllaa ko wax waa ja génn mbooloo ma waaxu jëm ci gileemam ne yàlla lii Muhammad wax su dee dëgg balaa maa gisuma gëmm giléem gi yal ma sànni xeer wu jóge ci kaw asamaan waaw dënnoo ko dal toj bopp ba mu dee lakk bi mu la tàgg ci giléem Ali bun Abi génn dama la soxla te yor yor na ñëw ne ko ana sama yaay umu fadli jabar gi mu ne ko mu ngi mu ne ko na tëdd ana xusam doom ji mu ne mu ngi mu ne ana fadl mu ne mu ngi nabi boole leen tëral ci kaw lal bi faf mbàjj mu rëy muur leen ba dara feeñul mu tàllal bëtam jëme ko asamaan ne yàlla ñeey sama ñoñ yàlla nga leen xaar ci safara musal leen ci ni leen mbàjj mi muure mais bi ñaan gi àggee toiture bi moo jëkk wax ak miir bi amiin yaa rasulallah ànd ak seen wàccuwaay yu rëy yooyu yëpp terewul yonent bi nee leen amul kenn ci yéen ku am wàccuwaay bu toll bi Sidi Abi am ci man keroog ba ñuy werante moo ko Omar ku gën te Omar dégg ko Omar dana leen tëj leen seen gémmiñ yi ngontal Ababacar a gën Omar ak ndeyam ba ñu génne guddi muy samp ay tànkam ba dugg ci xaari Ira jaan ja ne fa may ci sama kaw lal Ababacar ànd moom ngeen di ma tudd di ko tudd kero ba mu gàddaayee di dem jazakallahu na kero ba mu gàddaayee di dem léeg-léeg mu dox ci kanam léeg-léeg mu ci ginnaaw na ko demee bañ ko la doxale gaañ la wala ku la féete ginnaaw gaañ la booba ana Omar ak ndeyam ak baayam benn bésub Omar benn ngontu benn ngontu Sidi Abi Bakrin wala xëyam moo gën la cib Omar ak Omar ak ay wéy juróom ak lu ñu barke gaa yu baax yooyu nag ak seen fooraay bu nu yàlla mayee lu ñu amul ñoom te mu di lu dëggu war nañoo sant yàlla loolaay lan na nabee toog ba mu yàgg mu ne mébét naa lu ma dul am ñu ne ko yow mu ne man ñaan naa yàlla lu mu gàntu ñu ne ko rasulullah loolu lan la mu ne dama ñaanoon yàlla mu bàyyi ma fi ba ma gis samay soppe samay soppe gis ma ñu ne ko ah nun duñu say soppe nun mu ne déedéet du ngeen samay soppe samay saaba ngeen dama def ngeen gis ma wax ngeen dégg samay sopp duñ ma gis du ma leen gis te dinañ ma bëgg ni ngeen ma bëgg sama gannaaw la waaye yàlla daf ko ne bu ko mititlu maa la soo fi nekkoon buñ la soppee da nga leen di sopp maa la dégacé desal la fi seen cofeel ak ci ñoom maay fayante ñoom te sama cofeel la ëpp doole seen gos kon loolu Ababacar noonu na seew mujj woon ginnaaw ba fekk lii yàlla na yàlla def dëgg-dëgg xeetu rasulillahi doole ji ngeen am ba dajale ko di ko terale Moustapha di ñu ci teralaale nun ñëpp yàlla ko yàlla yokk doole ji sax amul solo li ëpp solo mooy déggoo gi déggoo gi yàlla ko yàlla yokk déggoo gi amul solo li ëpp solo doylante gi doylante gi yàlla ko yàlla doolee yokk boo ormati rasulillahi ba ngeen dëkk di tàntal Moustapha tànt bu mel nii jaami yàlla yëpp di ci defaru waxoon naa la toujours ne fu ñuy jàng bu subaa daañu baal ñeen fukki kër ci ginnaaw baal ñeen fukki kër ci kanam baal ñeen fukki kër ci ndeyjoor baal ñeen fukki kër ci càmmoñ ñun ñii fi toog nag kenn nag ku ci nekk bu bërsëtee ñeen fukki nit ñi ngay jëkk dajal yàlla na leen di baal ku ne candidat nga ëllëg pour quarante personnes nga war a sole nga seet kaar bi nu day kenn ku ne bu jëlee quarante dafa dal di am solo soo gisee kaar bu fu ma gàmmu rek damay njëlu daw damay bañ gis 40 ci dëkk jàmbur jéxal bala ma àgg sama kër ñu gëlé rek ma daw ci boole dara ci kër gi wal fa dara nu jàng fatiha nu jàng fatiha ak salatu ala nabi bu way man fatiha bi ñu def ko taabudan lillahi taala salatu ala nabi bi ñu def ko addi rasulillahi jébbal ko sunuy sëriñ ak sunuy way jur ñaan yàlla lii sëriñ abdu santaane bu yàggul xalifa bu baax bi naan nañu tàllal yàlla ñetti loxo ru jëf gi tàllal loxo la lisaanul xaal loxo yi itam tàllal loxo la làmmiñ yu ànd ak torox lu tàllal loxo la ndax ñu ngi jublu si nawet bi ilimaan bi ci nekk foo nekk ti boo sëlmalee na nga digal ñangat dendal ñaan man sama barki démb suma jumaa wax fa wax boo xam ne daan naa ko wax ca cëri ca euh, lu am solo la lu am solo la torop ci aajo maa ngi ko fiy waxaat xam naa sax du tax kenn weexal ma waaye rek yàlla fay ma maa ngi koy waxaat te am na na doole lool moo di def juróom-ñaar fukk ci sa kurus ci astaghfirullah bés bu ne waxtu wu ne heure bu ne ku nit ku loo ko sarax lu mu yàlla dina ci def tiyaaba dina ko nangu waaye nag Ibou Sakho ci raw guddi fay jii bilaay xam nga lu tax damay séentu lu war a mat ñetti junney gan wala ñetti téeméeri junney gan Madinatu Munawwara gii kat gaa yi bu leen defe ne benn ci laa ko bokkan ba benn daayira mbaa benn participation bu gouvernementale bu ci tab bi ak li nit ñi bari mu mu gàtt gàtt dem trois millions mbaa mu romb ko yàlla rek laa koy jiib ak suma borom sama bopp duma dem ci benn pant ba ne ginnaaw ëllëg la mi dina dimbale leen ma du ma jëm ci benn jàkk ne ginnaaw ëllëg la mi dina dimbale leen ma du ma jàngal benn daayira bind leen leetar ne dimbaleen ma ci midina man daal maay gar ndaaj rek mbir mi te fan yi yëpp yéen a ngi dégg rajo bi naan le premier nañ jël ci dépense yi kon xawma ban xaalis am jot pour war a jaar fa naqar yàlla waaye du bii bii moom mu ngi jëm ci mbàqi jullit yi ci Madinatul Munawwara pour ñu def salaatu tasbih alors euh, am na it leneen lu xew maa ngi ko doon wax suma rakk ju baax ji gars yi dañ ma doon wax at yëpp nañ def salaatu tasbih bi traduire ko en ana jóob yam li ma daan wax nag toujours mooy li am rek te bakkan yi bañ ko mooy ñun ñii fi mu ne daanaka noo aye noo aye xam nga luy xalifa lu muy firi mooy fi sa papa nga ne fa ci saayir xam nga lu muy firi ci baatin mooy yaa ayee dee <laughs> ah yaa aye de yaa aye yaa sa papa dee na yaa aye ay bise pour soi loolu de topp loolu de du noonu fatiha a dog bu am njëriñ boobu ma doon wax dama wax ne sa kurus téeméer la téeméeri pare ci ku wattuwul boo ci jëlee juróom-ñaar fukk fanweer ciy des du noonu ma wax nag ne juróom-ñaar fukk yooyu da nga koy def ginnaaw bisimi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba muy juróom-ñaar fukk du noonu fanweer bi ci def nag nga def ko bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim ba muy ñaar fukk ak juróom-ñeent xam nga benn ci def ba ca des nag boo ne bisimilah rahmaan rahim da ngay continue ba ci wala daa dina secret bu foor de boo teera nag ci wala daa dina nga gestu sa astaghfirullah yooyu ndéem mën nga ko ne istaghfiru rabbukum innahu kana ghafara yursil sama alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan ma lakum la turjuna lillahi wa khara yam foofu ñetti saat fatiha amul benn soxla benn soxla benn soxla bu mën a yelloog loolu ñu ko defee ci sellal e, ngeen jënd loolu bu ñu weer wi dafa sori ba ñu dajewaat fii déwén ak jàmm hmm? mu leen ko jàpp waaw kañ waaw kañ waaw kañ wa biiru samsamin xamarun tanaha xalaban إذ أخرجوه لجور كان في سما سما Come on up here, Well, I. gën a am na lu ñuy wax biiru sam-sam zam zam ñeenti leetar la yu bokk ñaari yoon ñu topp ñu takkaraaru ko ñaari yoon muy ni roog bon neeti bon zam jam li muy firi ci xibti mooy firi ariteel அரிக்கேல் அரிக்கேல் இப்ராஹமா على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام jabaram doomam moom la yàlla dogal ci ñoom génnuk ndox mii ñuy wax samsam ibrahima du moom rek sax bari na ci arab yoo xam ne seeni i jabar ñaare ñooy yor seen baat ñoo leen di ëpp doole loo dox ci ñoom mu tëb boo jaaree ci soxna si bunte fenc ku yéex a la am na cent amul doom Ibrahima soxnaam am quatre vingt quinze amul doom sun borom sàkk délégation bu mu yebaloon mission ci kër lootin pour ñu alak leen waaye nag mu yóbbante waa leen jaar leen ci góor gi ibrahima ibrahima ak loot ñoo frontière seen ñaari bàyyi bokk benn bàyyi ibrahima pap la ci lootin wax sama papa ma bokk bàyyi moo ko yaritam moo tax mu jëkk koo gëm bi waa këram di def lu ñaaw loola la ba yàlla àgg ak ñoom ci jëfanteeg ñoom ñamu yabaloon pour ñu dem gaañ leen la leen ne passé leen ci ibrahima bégal ko ne ko dinaa ko may doom bu góor maam Ibrahima ku bëggoon gan la wa alxateeka dayfu Ibrahima al mukaramin dayfu Ibrahima rek ngay dégg ci alquran daana def bu añ mu dox kilomètre ci yoonu wakkaam boo dajee kenn ñëw ngeen añ su gisulee kenn mu jël yoonu ngor su gisee kenn ñëw ngeen añ su gisulee kenn mu jël yoonu caaro yi su gisee kenn ñoo ngi añ bu xibla yi dajee te daje wala kenn mu saraxe añ ba continuer or noonu la daan def baraam alayhi salaatu wassalaam malaaka yi ak si mu dogale leen dañuy soppiku nag dal leen dig saal bi na yor indi xar mu ñu wàjj teg ci kanam malaaka du lekk ñu xoolante xamuñu lii lan la xoolante ci seen xel lii lan la ndax ndax ndax tubéy la wala wala kaala la xamuñu lekk Ibrahima gis ni seen kanam yi ñàkk leere ngir ñam bi mu leen taaj encore seen melo du melowu mu xam niruwuñu olof niruwuñu tubaab niruwuñu naar niruwuñu tukulóor niruwuñu séeréer ndax mbindi malaaka lañ yor mu tiit nag waaw jasa fi nafsi xiifa ibrahima nag dal di tiit dal di defe ne ñii ay euh, doxuñu jàmm malaaka ma nga xam ne mooy seen kilifa jóg ne nañu fukk la woon ñee juróom-ñaar ñee ñett déey ko ne ko nun dañu ñëw ngir bégal la yàlla dina la may doom fekk jabar jaa ngi fab sarbetam teg ci mbaggam di servi ndaw sa tàccu ne ku mës a dégg loolu mu am cent vingt ans taawluwul may jabaram am quatre-vingt-quinze amuñu doom fu ñuy mën jële doom فضائك تصرف وجهه نان أجوس يقول ما قد مجد فمي جلدهم ملاك انك اتعجبين من امر الله دنك بغو اوتال يالا من من تيجي ام دوم إبراهيم رو takk sax seet bu ndaw ci لكي أمي يومي koy amee nii ci at yi ngay amee doom ci gàttal rek laa jël de dama jël ci gàttal rek pour ñu bañ a guddee mu ju baax joojule mu di ismaila fa basarnaahu bi ismaila wa min waraai isxaqa isxaqa ak ismaila ñoo bokk bàyyi bokk ñu kii yaayam mooy awo ibrahima di doomi bàjjanam kii yaayam taara la bu ñu mayoon jabari ibrahima ibrahim ndaw si may ko ibrahima ndax namruut moo jëkk def duwaañ moo jëkk samp duwaañ ci frontière am kenn du fi jaar yor lu baax ma sopp ko ngay jàll ak moom mbaa ma bëgg ko mbaa ma bëgg ca ibrahima di war a voyager jóge Palestine jëm Urdun xalaat nag ne dina traverser frontière bi téere arab yoon ni nit yàlla yëpp ñoo fiir mu xalaat ne soxnaam si ni mu rafete su ko Namrud gisee te ko fu mu sa jaar ko rafet mu nangu ko mu dugal ko ci kees en ko ñaari baari ñi ni kirti kirti kirti kirti kirti kirti baa ci ci baa ci ci frontière bi e, e nekku leen e leen lii lan la lii la mu taxaw rek daan leen ñu ne ko kulbet fekk ndaw su mel ni ku mënatu gis ñu ne ko kii la ci yow mu xam ne bu ne sama jabar la foog waaji rey ko pour mën koo wéetoo mu ne sama jigéen la mu xam ne bu dee sama jigéen la dina ko ko jéem a ñaan doon goroom orma tàbbi maam moo tax bu àllaaxira maam Ibrahima nee noon mënu maa wallu kenn dama fenoon fenoon naa ñaari fen ci àddina ndaw su su dama sama jigéen la sa bokk ji woon dara keroog bañ ma yóbbu ci xërëm yi dañuy indi saqimun dama feebar te dara jotuma woon ñaari fen yëpp yàlla taxoon tax na bis pinc ñi mi ñu may gisi kenn ci loolu lu ma ko fi dugal rek ñu dem gaa yi na ko kii du jàll kii du jàll ah waaw góor kii du jàll prochaine de ko denc ba mu baree bare baree baree baree baree baree euh, euh, kii du jàll te buur bi gisu ko ñu ne ko cas jiital Ibrahima topp ci na ko foo jëm toogal ma waay amat ba seet yàlla la ko yàlla yokk du hormati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Ibrahima toog ñu dem soxna si dugg ci dugg ci palais bi passé salle bi dem ci salle de réception ko ñu ubbi leen ñu dem ci cabinet bi fekk fu buur bi Ibrahima ngi ci pénc ma toog maanaam Ibrahima nga ca ca dem toog ndaw saa nga ca palais ba waaye sunu borom tabaraka wa def na diggante fi Ibrahima toog ak fa ndaw sa lu fiy miir mbaa ngay sàkket mbaa ngay baraat yàlla soppi na ngay vitrine mu ja ak ñoom ah, chef d'état bi xool ko na ko yow kuy sa kër mu ne ko Ibrahima xalilullahi xariti yàlla mu ne nii loxoom jëme ci ndaw si pour ko loxo bi wow ba ci mbagg bi mu geestu geestu ne ko nga ne kuy sa borom kër mu ne ko xaritu yàlla yàlla nag li tax ma def Ibrahima xarit gaa yi dinaa leen ko wax dinaa leen laaj ndax loolu jar naa defi nit xaritam dit parce que daf ko nattu ci aleelam ne koo jot mu nattu ko ci jabaram ci doomam jotu ko mu nattu ko ci boppam jotu ko Ibrahima ku bari alal la woon amoon na ñeenti junni ak juróom-ñaari téeméeri xaj yuy sàmm xaj yu nekk gàtt la daan topp yu bari xaj bu nekk kulib gi ci baat bi wurusu ngalam la la cay la nga jamaa malaaka yi mos nañ ko seetlu ne kii la yàlla wax na xaritam la nañ ko seetlu juwaay ñoo fekk mu ngi taxaw nii di séentu gàtt yi na malaaka ne ci ginnaaw su boowoon xudoosoon rabbul malaayika wa turu yàlla la wala fa koy def li wala fa ko def mulu ñoom su booxun la ñuy wax lu su booxun su booxun la xudoosul rabbul malaayika wala fi nak naan su booxun ma la su booxun ma la su booxun ma mu melni rek nga fekk Seydou taxaw nga taxaw ci ginaaw ne Abdul Asis doomi alaaji Malik ji ah doomi yaay Safiyatu ji rek alaaji Mansour ji noonu tudd yàlla Ibrahima nag gis na euh, ku wax wax bi malaaka mi ne ko man mu ko euh, ndax mën nga cee dellu gàtt yi nga seen ma dog genn wàll gi jox la mu ne ko léegi dellu ca Ibrahima dagg genn wàll gi gàtt yi jox waa ji jiital gàttam di ñibbi dem ba sori Ibrahima joowar ko mu defee ne dafa ñeeñ ñi mu ko dool delluwaat ci ci des faf mu dellu waxaat baat yi mu jiital gàtt yi yépp jox ko ko ñibbee loxo yi neen gaa yi kooku mutul xel ci dégg sa tur rek miraas boppam di millionnaire ci yoor yoor ci tàkkusaan ngay ndóol ngir dégg turu li benn yàlla nattu na ko ci doomam inni araa fil mannaani nasba u kafan sul ma wa tara رب تفعل ما تؤمر ستجدني الله صابرين فلما اسلما وتلوا للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت رؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذب عظيم يالف كون سما قرب لالف انت يا مي ترايير léeg-léeg ma dem ci sa xol تي لف لا lëf با ما mbaa يالا بلا دوجي balaa dugg ci xol day yërëm bu fa séene dara du dugg bu duggee mun ne ko wax nga dëgg sama doom la moom rek laa am nag léeg ma fàttaliku du ma ko joxe jàmm nga nag kon ñibbi si dama koy rey yàlla na ko reyal boo reyee rek ma ñëw boo reyul mu xëy rek ne doom ji dama gént mu mel ni dañ ne naa la rey daas faaka ba mu ñëw mu fab sa doon ci ndox fab buum génn iblis saay saay bi ñëw ci yaayu ndaw si na ko xam nga fu ñu jëme sa doom mu ne ko déedéet mu ne bàyyam da koy rey de mu ne ah, ah ne ko daf lay naxaa ah, daf koy rey mu ne ko mën ngaa gis ku jur doom di ko rey mu ne nee ne ko ko waxee moo saay saay mu ne ko bu ko yàlla waxee de def rek laa ci xam mu dam xale ba ne ko xam nga fu la sa bàyyi jëme doom mu ne ko déedéet sama yaay lay taxana mu ko daf lay rey de mu ko góor gi kenn du am doom di ko rey mu ne ko dana yàllaa ko ko santeey mu ko bu yàlla santaane def rek laa ci xam ibrahima nag saako gis nga boo ñëwee jamratul xaqaba ibrahima feeñu na fa iblis iblis feeñu na fa ibrahima mu sànni koy xeer mooy xeer yooyu ngeen di sànni ci àqaba usta mu feeñu waar ko fa mu sànni koy xeer jamratul jamratul ula mu feeñu ko fa mu sànni koy xeer mu des nag pexeem jeex nag mu seet mu toog leen seetaan Ibrahima ñëw tëral xale bi xale bi na ko yeewu ma dëpp ma bul ma xool njureel dafa metti teyit bëgg ma boo bàyyi santaane yàlla musiba la nag ma dëpp bu suma yére tax a deret léegi ma yaay di ko fàttaliku ku nekku na muñ bu dajeeg yàlla mu fay malaaka yëpp wàcc di leen seetaan ñu njoñ goos bi dëpp ko na ko lu ko Ibrahima dëpp rek tiim ko mu yuuxu na ko yeewi ma ibrahima tiit mu ne ko soo ma yeewee doo ma dool maa rey day mel ni boo ma yeewul ma daw yeewi ma ma liibar toog xaar fi paaka bi mu yeewee ko mu sukk ñaari tànk yi sëkk góor gi dawal paaka bi paaka bi bañ mu dawal ko mu bañ mu téen ko ne ko bàyyi waxul saytaane ba wuuteeg sa santaane borom ibrahima si gi essayé paaka bi ci benn xànq bu fa nekkoon paaka ba daggat xànq ba ibrahima wëlbati ko wax ak paaka bi نكو مصيبة دالنا ديرو دوم آدم نمو أوي فمون لكو دقة دي دقة بنت دي دقة خانقة خير تاكا بوا حق موم نكو نياري كمان ما مسيق بين الجليل والخليل الجليل مو يالا دفنا بما دق والخليل مو يو دنگا دنا دق خم غد نوالا فالي تي يالا سنتو مرابا وفدهناه بسكن أسيم وبركنا عليه خلاسم وامانا كوكو جارو لدف خريب reyal sa doom rek nga rey mbaa ma bàyyi la mu reyi ko ñaar ñetteel ba dañ ko sànni ci safara te yàlla tax ba mu ne maam yi xërëm yi papi Ibrahima ébéniste woon bu mu fiin bu fiin loxo daana liggéey statue yu rafet rafet di ko jaayloo ji ñuy wër di jaay di jaay gars yi di ko def yàlla waaye Ibrahima moom bu mosee jaay le lambale mosula jarle benn yoon dafa la daan crier naan kuy jënd lu lay lor te du la jariñe kuy jënd lu lay lor te la jariñe <laughs> moom <laughs> lée mu ñëw ci génn dex teg ko ne ko doo naan doo naan daldu teg kawar gi këf ki daan ko eh, ne ma haza tamasilu lati antum la xaatifun ma haza tamasilu lati antum la xaatifun papa demoon nag gédd bu rëy la ñu amoon miir ko am na fu ñuy jaamoo yàlla buñ jàmmoo ba wàññeeku ku nekk fab sa desiti la nga ne istati baa yóbbu ko kër ga di ko barkeeloo dara du ko laala ah. xam nga olof yaa ngi wax tuur sunu mbokki la buy tuur tuur nee naa tuur mi yaa ko fi tuur yaa fi tuur tuur mi waaw xam nga loo ko fi tuure soo moomu nga fi sànni la sànqale yi ñëw di ci force mbóot yi seen sànqale si di ko force si ndax yi ñëw di force mbóot yi jaan ji ndaw jooju nga ne nag mooy tuur mi ñëw di seet si ñooñu moom tuur lu mu am kon yaa fi tuur tuur mi yaa fi tuur tuur mi kenn ku ñu la tegal booli maam Ibrahima ne maa làkkum laa tàkkuloona du ngeen lekk ñu ne sëmm mu ne alaa tantiquun du ngeen ma ñu ne sëmm mag ñaa ngi julli jikat kat fekk ba ñuy julli ji engagé nañ ko mu dem ba tolloog sërëm la fab teg ci biir bi na inni saqiim ni ko alquran waxee mu daasu suma biir a ngiy dog suma biir a ngiy ñu ne bàyyi leen ko fi def nuy tàlleer ñu dem nag mu dugg ci biir ci déedéet na mu tudd ah wóorngal ba waaw wóor fekk isti yëpp ngi ne jàng mooy leen du ngeen lekk ñu ne pat waaw du ma tont ñu ne pat alquran ne fa raaxa bil yamini raaxa mooy nii mu jaayi nag alquran ne jaayiwul côté gauche amul doole bi ñu yemee ni wetu ndeyjoor la jaayoo rek fogg semi bi a rëy dal ca ba ca zone mu dal ca ñu ne ngaay mu jàppal ak semi ñu nga daw di ñëw pour jël si lekk bi ñoo fekk yëpp ne سمعنا فتى يذكرهم يقول إبراهيم قال لا بي على عين الناس لعلهم ku def lii benn waay ne am na zulum bu tudd Ibrahima bu doon saaga yàlla yi lay sànq ñu leen ko sax mu muy dugg ci dëkk bi tel tel tel fekk ko ci néeg yaayam ñu jiital ko nangoos na fii ci kanam nit ñi bi ala ayna nas laalum yasadun dara ñu ngi ko ceene mu taxaw ñu ne ko a ah, anta faalta haza bi alihatina yaa ibrahima yaa def ju ñaaw ji jëf ju ñaaw ji yaa ko def mu ne bal eh, fasalu kabiruhum haza eh, eh, fekk mu ngi bëgg seen bi bi wekk ko ci bi gën a mu ne laaj leen ku mag kii ëpp xërëm yëpp te gàddu seen bi bi alors ku daaneel ne na ca saasa ñoom ñëpp liimaan dugg na leen ñu ne xale bi wax na ma nakki soo ala ruusihim allahu akbar aka gaaw su ma nakki soo ala ruusin ginnaaw bi ñu xamee ne bos bi am na dëgg li ñu nekk du dëgg yàlla ne iblis ñëw jataat leen ci biir kéefër ñu siggi ne ko laxat alimta maa aawla yantiquun yaa ko tey xam nga ne ñi mënuñoo wax mu ne kon ufil lakum wa lima taabudoon musiba dal na leen la ñu ngeen di jàmm jaamu koy jaamu daf la war a dégg boo koy ñaan mu yëg am déet booy muslu mu yëg ko daf la war a gis booy toroxlu mu gis la boo yërëmtu mu gis la waaye boo yërëmtu du la gis boo waxee du ci dégg noo koy jaamoo waaw lu ngeen xam comme suñu ministre ne nañ ko lakk awriquhu wansuru alaatikum in kuntum faa'ilin nañ ko lakk joxe ordre at yu bari wala weer yu bari ñu taxam wax nañ ne gas nañu set kilomètre sept cent quatre-vingt-sept ci suuf di ko léem di ko léem di ko léem man ba mu génn ñu dem moom ci kaw sept kilomètres sept cent quatre-vingt-sept utal ko pax ci suuf jafal ko xaar presque sept mois muy tàkk ba li woon ci kaw daanu ci biir ñu door a préparé pour sànni ñu ñëw ñu ñëw mënuñu ko sosaan ni tàngaay bi tax na lu fi jaar lu fi laa lu fi jaar dee lu fi jaar ñëw ne leen ut leen lu ñuy wax trois moo di moo di ah déedéet mbax waaw giri giri giri giri giri bu waaw kay léegi ñu teg ko ci malaaka yi ñëw toog ci antaluñ ko mu leen malaakaa ci toog su ngeen bëggee malaaka yi kiite oo leen jigéen ju sëy mu def boppi neen parce que malaaka lu gis boppub neenu jigéen ju sëy ñu oo as ndaw mu ñaari bopp ba rek malaaka ya naaw ñu sànni ibrahima ci safara jibril fekk na ko fa ne ko bëggu la ndimbal mu ne ko bu dee yow de bëgguma ci koo ko bëggee mu ne yàlla mu ne ko sàkkul ci moom ndimbal mu ne ko xam gi ma xam li ma nekk doy na sàkku yàlla nee na pat ba géejog maam Ibrahima géñu gi géñu gi ci ndigg li li ci doon langaa gi toll ne làkk mu laa yàlla muñ na ba loola commencé tàkk mu door a wax jibril jibril la na ñetti yoon leeru Muhammad wallu na ma budul woon ak moom ñu far suma tur parce que suñ borom nee na ko na nga dem ci fulier bi yor matelas yi jaar ca ka yor lal ya jaar ci ki yor darab ya ak borom ngegenaay ya nga roof ko ci le mohammed ba buy dal dal ci mom ci biir safara nee na buñ ma tubbul won leeru mohammed sama service bi mangi way ñu tudd way waaye ñu waaye ñu tëbbaat ma leeru rasulillah mané fay dem ci fourier bi demandé ko ben benn bu wal ku ñu jox ma ben matla jox ma ngegenaay jox ma darab ma ñoo roof ko ci bi Ibrahima deppeelu ci la dal yàlla ne yaa naaru bardan wa salaaman ala ibrahima fa aradu bi kaydan fa jàlnamu l asfali borom alquran ni na safara bi seddal te musal ibrahima bu yemoon ci seddal rek sedd bi gaañ ibrahima bon dina sedd ba ibrahima gaañ ba yàlla waxee am na ñu ñetti fan benn safara tàkkul ci àddina sa su ne man la yàlla wax nga lakk ak safara bokkul maam Ibrahima tax ñu xam ko lu ñu bind safara bind lakk roof ci boo roccee lakk rek safara fii des Omar Fuuti def na ko misra góor gu mag ga wala yu réy wa dafa ñëw di dugg misra misra dañ ko tata mu fekk ñu bundi ñu bind ci buntu ba ne haala madinatul ilm man daxalaha faal fii mooy mànga seeni xam-xam ku fi dugg laaj ak loo bari bari xam-xam Omar Fuuti ne kóoni dinañ ko far dem dal ba noppi summee ko rocc siru safaraw dëkk ba taal yëpp di takk boo dugale sa loxo dara dana lakk nii togg añ ba timis benn cin baxul wallahi ñu ne dëkk bi am na gan dëkk bi am na gan dëkk bi am na gan dëkk bi am na gan vérifié vérifié vérifié wala yi dañuy xamante ba dikku mu ñëw taxaw ak yeesam ak buusam ñu ne ko dañu jaaxle te lii kat yaa ko fi def ndax musunoo dal Ah, mu ne kon dem leen ci buntu ba ngeen far li ngeen fa bindoon da ngeen doon fay dëkk bu xam-xam ku fi ñëw laaj far leen ko ñu faase ko ci guddi mu delloo leen si ruusa ñoom ñëpp ñu ngi añ keroog ci géeye la ñu añ géeye géeye géeye la ñu añ ah! fayal te sedd sedd gu musal yi kooku jarul def xarit Ibrahima nangu ñu lakk ko ngir yàlla nangoo rey doomam ngir yàlla ak lan joxe yëpp ngir yàlla te koo ci fiir jàpp sa alal sa doom sa bopp yàlla nag def ko xarit moo tax bi ko Namroos laajee nañ dem ca ndaw sa ah, ndaw sa ca pale ba jabaru waay maa ngi ca pale ba duwaañ yi yóbbu nañ ko toog na ko ci pénc ma mais lépp victime la ba mu tàllalee loxoom loxo bi wow mu laaj ko ka kuy si jëkkër mu ne ko xalilu lay mu ne ko tuub naa ci barkeem loxo bi delluwaat mu xool ndaw si ndaw si rafet lool mu defe ne xëy na loola woon rëcc la mu daal ne bi yoon dafa mu daal ne yoon dafa karaan katax rek ba mu ne bërët tànk bi ànd ak loxo bi mu ne ci ruum bi dal mu door tuub tuub gu sell yëkkati nag saara jox ko aajara muy jaam bu jigéen ne ko maa la ko puubale si jëkkër bi ndeysaan bi ndaw si dellusee xam nga jigéen dañ ndeysaan dañu bari sax mu bañ a jegeñ maam Ibrahima mel ni ku mer defe ne góor gi dina ñaaw njort góor gi ne ko jegeñ ma doom jegeñ ma sama soxna yàlla fóot na sa der maa ngi jënoog yow yaak waa ji fii ma toog fi ngeen jar yépp gis naa ko mu door ne ko nag yàlla farloo na ma loolu kii ñu ma mayoon jox naa la ko jàmm mu jox ko kër jur Ismaïla kii jur Isaaq may ma aw góor waay mbeng mbeng mbeng mbeng mbeng ah moo ko ko may moo ko ko may jigéen moom la mënal wu jëm seen ñaari doom yu góor yi ne fi léeg-léeg ñu ne kirtim kirtim eh, jékki ne góor gi yow kii maa la ko fi kii wala et puis c'est pas le ma xasal fii <laughs> léegi nii la nuy defa ah? dootuma ah, ay loog moom ah pour ñaari fan ñaari fan déedéet léegi damay am mois mu am deux jours Ibrahima marché Ibrahima marché Ibrahima marché Ibrahima marché ndaw si am dem ba mu yàgg mu ko daal yooyu sax bari na li gën a gàtt daal na nga ko kër gi Ibrahima amul ñaari kër amul ñetti kër waaye nag pexe jeex mu préparé yóbbal préparé ndox sam laa lay wax si de li ko sañ ànd ak moom di dem ba ñëw màkk muy àll bu mel ni fële Ibou Sakho tabax jàkkam jëlee ca ca yoonu campement tudde ko Medinatul Munawwara ba ma ko fay door a def ni ñu naan waaye kii lu muy def nii xanaa day fontu may reen kaaba géey jëkk nit ñi ci màkk de bàyyi leen ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko aw oh, oh, góor ibrahima ànd ak soxna siy dem ba ci xuloo nga gis kuddaa mu desoon tar teg fa soxna sa jënt baa ngay xolam ba mu ko nee génne ko Ibrahima d'accord ci génne ko dafa dem ba ci buntu ba mu ne ma mu ne ko xaar ma ma toroxal ko ba mu xam ne kuy suuru kudu sa nawle dañ lay toroxal daf soxna si bënn ñaari noppam yi roof ci euh, roof ci yi lu ñuy wax saab saab ba léegi balaa jigéen rafet bënnu yàlla feyee ko loola mu takk ci tànk yi ay euh, ay ndenaat moo tax jigéen ñi daan takk téqal ma ba muy xew mu ne ko nag demal fu mu jaar mu xam ne dañ ko dàq mu jiital ko ndoomam soosu ba ci àll ba mu bàyyi ko ci wàññeeku soxna si ne ko koo may bàyyil fii Ibrahima ne pat di dem rek sama sang koo ma bàyyil fii muy dem rek yoonu ñetteel ba mu ne ko ndax lii nga def yàllaa la ko digal ibrahima daldi di am nag fu mu wiru gestu nako waw yàlla mako digal mu ne yàlla doy na wéttal demal ba ibrahima demee ne ba yëg montagne ba la joxe ñaari loxoom yàlla nako rabbi inni askantu min duriyati bi wadin khayra si sarak inda baytikal muharram rabbana li yuqimu salaa واجعل عافية من الناس تعبي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يعقلون بو ديفولون من مومو borom borom bayaan yépp nañu defuloon min moomu ñëpp aji màkk waaye daf ko ne nanga dogal ñenn ñi ñëw fi dara duñ ko béy ca màkk te lool soxlaa jënd ko fa soxna si toog fa indu fa jox li mu dese woon ci ndox xale bi mu jeex mu fanaan ndox mi jeex xale bi mar lool di jooy dëkk amu fi soxna si nag di séentu ku ko mën a may ndox fi mu ne na xur mooy fa ngeen di ñëkk ñëkki ci bu ngeen di dox Safa ak Marwa ñaari lamp yu werte yooyu fa la soxna si toogoon waaye booba Safa montagne la léeg-léeg mu daw yéeg ci Safa séentu ku ko war may ndox du ko am mu wàccaat dem Marwa séentu ku ko war may ndox du ko am lu tax nag bu tolloo foofu daw te bu ko paasee taxaw mooy jamono bu tolloo day dégg jooyil xale bi jooyi ambete ko nag mu daw bu déggatul jooyi am sago إن صفا والمروة من سعير الله فمن هز البئت أو يحتمر فلا جنى أن يتوفى بما ومن تطوع خيرا فإن الله ذاكر عليم يوم جنوب نار البي لفك في خليفة بن البيق التانك بي سمسم جنف مؤقس من أنك ذم ذم ذم زم mu toog fa be xale bi mësuur toog fa ba ko sàq ñëw fa biñ laata ñëw jur gu fa jëkk a jaar yore ay gàtt di uti fu ñu forale ndox jafeñ loolu ñu seen picc yi naaw ñu jaar fa da dañ bëggoon def ak yow coopération nga di ñu jox ndox ñu dina la jox soow ak tàndarma te dëkk mu d'accord di leen jox ndox ñu di ko jox soow tàndarma doomam yooyu ci ñoom la sëy bi sunu jamono bi Ibrahima ay tabax kaaba gi déggoo nga xale bi dégguñu làkk déggoowuñu làkk sam-sam boobu nag ca boobu ba léegi ñeccagul ak li ci ujaay yi tànk di yóbbu du jeex wax nañu ne moo euh, béeru béeru xaar sin bi ñu sange na bi ci mi dina ñoo bokk bël bu ñu jóge li taxit tax ñu dëggal ko am na ku mës di root ci sam-sam yor mbattu mbattu ba dog riir ko mais toog nañu ba am deux ans troisième ba mu génn ji ci a Munawara ca teen boobale ñu xam ne ñu bokk benn malka sam-sam nekk fa nag dina jour sa dëkk bi ci la ñuy doxale dëkk bi dëkk ñuy wax ñuy ay ayloo nag jurhum ku mag moom ku mag moom ku mag moom jurhum may ko jabar xadd mi dee seen goro des fa jël ko ñu toog ba guur gi ñëw xasaa ñu siif leen amuñu droit sax ci moom dëkk ba waaye ñu siif leen parce que booba dëkk bi peste bu bon fa ne bu daan rey quatre-vingts personnes jeune par bëccëg ba góor gi jeex jigéen ñi des fi ñu ñëw nangu kilifte fi màkk ga ñoom gaa yooyu nekk fa nag ba ku am ku aye ci ñoom ku ñox Omar ibn Lay def ku jubadi ku jubadi dëkk bi préparé lañ koy folli mu daw guddi nag bi mu laata daw mu fab mu fab mu fab mu fab mu fab na ngeen koy wax li ngeen di woote budget bi budget dëkk bi alaaji maa ngi nee na boobu budget Makka xam na na mu day eh, eh, xam na it ka joxe woon li ëpp ci budget ba xam na turu borom waaye pour ñu bañ a perdal ñu bañ koo yàq dañ ko tëggoon dañ ko fa boon wurus la woon ñu tëgg ko tëgg ko benn biis tëgg ci benn jaasi tëgg ci benn mbubb bu ñu soxlaa fell ci jaay waa jooju nag bi muy génn xam na antanu leen dafa xaar ba guddi mu boole yooya sànni ko ci tàtti samsom suul ko ba mu maase samsom réer na cent dix ans ci biir màkk xamatuñu woon fu mu nekk dañ daan dégg rek deew amoon nañ fi teer mu ñuy wax sam-sam euh, suñu maam yekku laan jegeen nangam nangam alaaji Maalik nag dafa la bëgg a wax tey fi ñu jaar ba turwewaat sam-sam ba nga naan ci bi nga ajee bër ci démb ñu indil la ci loo denc ci sa kër mais perdaloon nañ ko cent dix ans wa وبئر سمسم تنبيل سمزم تنبه سولون لكو بمو ماسي كوكا دفون عمر حسدا غير كنان كنان جوك في كنان يركو تخل مدفكو lu waral mu def ko mu ne is axrajuhu ba ñu décidé génnee ko li jëwrin ngir jeng kaana goo xam ne nekk woon na ko di ko doxal fi orami ci jàng gu mu doon nekk ca màkka ba ñépp d'accord ne euh, altine nañ ko folli fal keneen mu yëg ko secret ba xaar ba digg guddi samedi soir mu fab wurus woowale alaaj maa dina wax ak yow léegi wurus na mu day ak ko ko joxe woon ak na mu tudd ak ban buur la woon léegi moom la fab sànni ci bi peel ko bi fa yàlla taxaat ba mu maase naren bay màkk peel dal nañu ko téeméeri at ak fukk alaaji Malik ne na ba mu suulee yëf ya di dem mu ngi ñurumtu di dem ci guddi gi def yol yol yol yol di ñurumtu ñurumtu ya nasru te doon woy ay woy la doon woy di ñurumtu moo dana na xam naa woy ya xam la mu ci ñurumtu ñu ne la